Salam salam salam maa leen ko waxoon maa dellu si Sista Awa Alé ngeen di andal ci cette émission bi leen Vision Média jagleel bienvenue nak ci couleur de l'été comme ni ma leen ko waxee won be passé deuxième numéro couleur de l'été tay nak xalé bu sob bi nee naa leen doxantu rek lay def ma ngi ñew tay ci plage le virage def doxantu ñew ci cette émission les couleurs de l'été comme que Awa évasion nee dañuy fël-fëlaale di sané ko ba mom mais li ma moy mooy lenn la Delpha tay le virage d'ef calme

fois ni ma la ko waxee woon maa gis nag couple boo xam ne maa leen gis bëggal leen sam bopp ñu neex ma trop trop ma fekk leen fii ñu toog fa seen am ak ñoom waxtaan mu ndaw ndaw ndax ñii ni ñuy dundee seen vacances il paraît que neex na sëñ bi nuyu naa la. Euh, fay naa la. noo tudd. man maa ngi tudd Pape Diallo. Pape Diallo ñu fekk la fii en couple ci plage bi ñëw tourné si émission bi nga xam ne mooy 100 pour cent été euh, ndaw daal kon nii ngay dundee say vacances. waaw. Euh, nga man je suis euh, professeur donc euh, bo xolé pratiquement maa ngi ci école bi nga xamné donc euh, dañ liggéey lu mat dix mois donc dix mois wax dëgg yàlla boo ko boo au moins même bu dee un mois de temps en temps ngay ñëw vraiment di féexlu mo waral li tay quoi. nga ñëw di féexlu parce que 10 mois mom dafa bari bo ñëwé am ay vacances fo jaar di nga ñëw féexal sa xol mais da nga ñëw ànd ak madame effectivement. parce que ni may sonnee ci école bi mhm. moom aussi man noo sonnee ci kër gi donc euh, laa ñu aussi su may feexal sama xol man nag moom feexalal xol feexalal xolam ak samay suñu doom mais man may nga ma xale bi de maa bëgg waa télévision média ñëpp xam loolu amul benn problème xale bi ma ne la gis nga instant bi bu fi jàkk bu fi jàkk jege woon ñu fas say man ma xam ne damaa nopp muy dosé di ma xool noonu damay daal dem ci madame fay naa la soxna si. madame Diallo nga ñëw en couple ñëw dund kon jàmbaaru jigéen nga. jàmbaaru jigéen laa moom wax dëgg yàlla wax na dëgg liggéey beeg stress bi waaw loolu la. waaw mais yéen a ngi gis plage bi fii ci kanam parce que maa ngi doon wax rek dafa calme mais nit ñaa virage c' est pas benn plage boo moom laa wax wóoru ñu def ndànk rek bañ a sori xam nga géej gi moom wóoru wóoru amul bànqaas def ndànk rek bañ a sori waaw waaw ma leen di jaajëfal bu baax a baax mais yëg ngeen ne ngeen a dundee seen vacances baax na ah ànd ak monsieur madame ak sama chéri bu ñaawal bi des fois damaa bëgg nga jëlee ma ko bu baax a baax damaa am jëkkër tey si plage bi te daf may jox dépense dama koy yóbbu El Vision El Hadj may naa sama jëkkër bi El Vision des fois topp ma léegi-léegi ma dem a xool keneen ak keneen ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ok Aïcha mu ngi noonu guma dé Aïcha delfu comme ni ma la ko waxee ma ngi ni nak dem di xoli ben maître nageur wax waxtan ak mom nak ci le virage parce que yone la moko téléspectateur yi du ñu seetaan di xam le virage plage autorisé le ou c'est pas autorisé top ma. salaamaaleykum sëñ bi na nga def. waaw man rek ça va bien. noo tudd. Bassirou Diop. Bassirou Diop oui maître nageur. maître nageur. place ma fekk la tey fii comme ni ma ko waxee léegi ngeen di ay maître nageur euh, noo gisee plage bi noyade bi fan yi ni mu baree et tout. bon noyade noyade yi temps yi bëri nañ trop quoi jamono yi passé quoi mais fii ñun ñoo ngi sant yàlla quoi amaguñu benn cas quoi franchement parlé. amaguñu benn cas amaguñu benn cas quoi dañuy ñaan mu continuer noonu quoi. sen liggéey le wala wala ni ngeen di toppee di sensibiliser comme sen rôle daal parce que yéen a ngi ci plage bi yéen a ngi ak seen tenue yéen a ngi veillé ci sécurité bi et tout nga yaakaar ne loolu ngeen di def noonu mom mo empêcher yu bëree bëri ci plage waaw lolu la parce que ñun bon dañu am façon bu ñuy liggéey quoi bo xolé plage bi dañ ko baliser quoi han ah, da ngay xol ñaari balise mo fi am les baigneurs dañ leen di wax ñu nekk ci digg bi quoi comme ça ñu gën leen mëna surveiller quoi donc ñun prévention la ñu gën def. plus de prévention moins d'intervention. intervention. loolu la tubaab naan mieux vaut prévenir que guérir. voilà mais yéen bëggoon naa xam ci fan ngeen basé wu c'est état ou bien yéen a cette structure bopp. non ñun ville de Dakar moo ñu fi teg ah. ville de Dakar oui ville de Dakar moo ñu fi teg quoi. Mm. ngeen ñëw fii di def sensibilisation bi et tout mais man tey li ma jaaxal le village dafa xaw a calme wala par heure la wala waaw fii nag bon d'habitude baigneurs yi après midi yi la ñuy ñëw quoi waaw ay 13 h ay 14 heures jàpp 15 heures ba 16 heures quoi après midi quoi la ñuy gën ñëw quoi oui. Et am ngeen responsable je pense wala yow la. bon suñu responsable mu ngi fii. Mm. moom mooy responsable quoi mais moom moom moo ma jox euh, ndigal pour moi wax quoi. Ah, ñu lay jaajëfal lu baax a baax su ma jógee si yow nag damay dem seeti borom kabaan yi restauratrice dégg naa nag ku ñëw la virage ngeen teral ko ba mu tedd ah. dama da ngeen may teral de. ngëyeen laa damay lekk ba suur naan ba màndi dama war a jox Eva mu lekk jox Fadel kon jeex na yaa ma ko dig de kon jeex na tàkk Fadel Aïcha mu ngi noonu maa ko digoon maa ko andiwaat deuxième numéro émission les couleurs de l'été 100 pour cent vacances say doon ñu ñëwoon tey fii le virage waaye li ma jaaxal mooy le virage moom tey dafa calme couple par couple la flash bi dafa calme ba nga xamante ni si moo tax damay daal di sànni micro bi sama rakk xol sama xarit muy Eva borom li ma doon j'espère que Eva yaa Ngor taxaw 100 pour ambiance la fay yëg de ndax Ngor dara du doy di japp di gëreum nak ñi japp ci combat bi yëpp yëpp jeng Baalo sama xaritu xol doomu nday si di Diop di ja gërëm bu baaxa baaxa baax a baax Delpha ci caméra bi awa ale mo leen doon servir di leen jox rendez-vous ci benen numéro émission comme ni ko Eva Show di waxe les couleurs de l'été fi lay doon ci benen plage ma ngi dem. waa eh, tey nag ñu ci la à la plage de Ngor. xam nga aw ale mu ngi woon fi nga xam ne ne mooy virage léegi man maa ngi fii ni nga xamante ne mooy Ngor nag c'est ma place préférée léegi damay daal di dugg def les couleurs de l'été laaj gars yi naka la ñuy dundee place bi ak journée bi allez mon cameraman topp ma alors léegi nag damay daal di xool ñi nga xam ne ne ñoo fi jaaykat yi daal di koy laaj plage bi nu muy demee ak jaay bi ba muy jaram de ay seen sama caméraman Delpha topp ma salaamaaleykum waaw <laughs> li may dugg de baax na lool waaye Fadel yaa ngi gis yii <laughs> mais na nga def. maa ngi fi. est-ce que xam nga ne yaa ngi sa émission les couleurs de l'été. ah loolu dama siy kontaan. Mm. Mhm. ñu bëggoon a xam nag jaay bi fii ni muy demee ba mu ngi doxam déet fii ci ngox. ñu ngi dox bu baax macha allah. mu ngi dox bu baax. ak été bi nii samedi dimanche defe naa ne ci lay gën a. affaire bi gën a ci lay gën a doxee moom. Ah. mais noo leen gisee xale yi fii nii ak plage bi ba wóor na. wóorul mais am na ñu fi nekk di leen jàppale. Mhm. ndax maire Ngor bi moo jël ay xale yu góor pour ñuy xool ñii ñu bëgg a violer wala ñii bëgg def leneen ak leneen wala ñu bëgg a lab mhm. ñu ngi siy def ay matuwaay yu baax macha allah parfois fii nii plage bi mosoo dégg ñu ne benn euh, xale kii na fi des na fi wala dara. non non loolu nag moom raar na fi trop. dëgg yàlla waaw xanaa day nekk repp rek mais géej gi amul benn problème. amul benn problème non non amul benn problème yi daal su ma déggee bu baax ñu ngi si waaye yu mat lay yor dëgg yàlla ñu ngi def li ñu mën. Ah. soo sees yële noonu dañuy yëg si kaw pour di xool rek kenn bañu am benn problème. macha allah ñu ngi leen di jàppale bu baax. kon ni ñu ko déggee gi nga sama maire bi di lakk jën yi saf yi fii nga xamante ne moo di Ngor laay tegal nii de ah léegi nag nee na plage bi moom sécurité waaw total léegi maire damay daal di def nii xool keneen maa ngi nekk. waaw sëñ Fallou rek ah. sëñ Fallou bu. waaw kon baax na allez ciao merci et eh, damay daal di xoolaat. wa ba legi aw ale yaa fof non nga xamne ne modi virage mais man fi ngor xolo mu ngi toje nu ne barki yonent bi legi damay daal def ni xol yi nga xamne ne ne ñoo fi toog di dund air bu neex bi laaj de naka lañu ñuy defar plage bi allez lu ta demo fi euh, virage wala feneen na feneen nga préférer nga ah man mom ngor ma gënal ay virage yoy parce que ngor ambiance bi am mom amul fenn mota dal ma préférer ngor daal nga préféré ñëw fii ne ak bébé yi. na ngeen def sangu ngeen. ah est ce que sangu ngeen ci ndox sangoo ko. ndax sangoo ko. waxal papa mu bàyyi la nga dem sangu dégg nga dégg nga allez ciao ciao ñuy dem ba beneen yoon ok merci beaucoup. maa ngi nii taxaw ak benn maître nageur daal koy bëgg laaj moom naka la gisee plage de Ngor bi ak xale yi ça va na waaw ça va man ba ma la gisee dama laa fan parce que li nga doon jigéen ba pare nekk maître nageur yombul doon jigéen doon maître nageur parce que xam nga koo wax rek dana nooy bàyyee sa kër di ñëw def maître nageur kon ça veut que yomb na yombul mais fii nii plage de Ngor bi nooy gisee xale yi at bii géej ji waaw plage bi moom li ma si gis jàmm ak salaam rek di question damay tagg sama bopp wala dara mais plage bi moo bindoo noonu yàlla def na ba plage bi bi fi amee problème rek guddi ba guddi la mais heure de baignade yi problème am fi macha allah ndax sécurité bi doy na maîtres-nageurs doy na. mais su ma gisee bu baax man pour ma dégg fi ne xale lab na fi yomb mais comme guddi gi kon ni nga ko waxee dégg naa say biir wax dafa mel ne guddi gi daa am ñoo xam ne ne dañu nekk si biir. waaw boo déggee mën la guddi gi parce que fois ñu am fi benn cas de noyade rek à partir de 19h bu ñu wàccee. parce que ñun 19 heures dañuy wàcc dégager suñu responsabilité bu ñu wàccee si la nit ñi di gën di ñëw di sangu léegi loolu noonu mooy indi cas yi nga xam ne dangay dem ba sa kër ñu woola na la nit réer na si géej gi pour nga ñëw nga seet ko heure boobu te heure boobu nekk na heure boo xam ne dafa dangereux même si ñun ñii di surveillant de baignade sax heure boobu dafa dangereux si ñun pour ñu dugg si géej gi su ma déggee lu muy wax bu baax defe naa ne ñoom même guddi gi suñu leen woowee ne am na ko laf ci géej gi dañuy waaw dañuy ñëw dugg pour seet parce que xam nga tey ji nga nekk sa kër ñu ne la kaay woo nañ la rek boo ñëwul mun nañ wax ne ah maître-nageur bi de démb bii li xewee woo nañ ko mais ñëwul kon ñun bu ñu wàccee 19h normalement lu fi xew à partir de 19h dañu war a bàyyi suñu kër yi ñu reposé wu ba suba bu ñu ñëwee ñu xam ne kat ah lii xew na mais imaginer nga ñibbi sa kër ñu woo la 20 na la kaay am na ku réer boo ñëwul bu boobaa mun nañ la tëral foo xam ne nii tëddoo loolu moo tax ñun maître-nageur bi dañoo sonn ñoom. c'est pas facile daal man daal ñëwee naa ko di dinaa ñëw nga jàngal ma. amul benn problème ah, kon baax na. e damay daal di xoolal xool keneen fële na ci li nga xam ne ne mooy gaal yi e sama cameraman dama bëgg nga daal may topp may jàpp. mais delta ba léegi maa ngi ci plage de Ngor ah daal di gis benn jël fii bu naaxee dama koy laaj moom naka lay dundee plage de Ngor. salut ma puce. salut ma belle ça va. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax. mais yow lan moo bi. ah te préféré xam nga rek mooy loolu. jël air nii nii. jël air ànd ak samay xarit. waaw ah. ñoom li si taar ak ñu ngi léegi nag da ngay wala. Je ne laaj pas def ko bi ah. mooy loolu mais dama gis ne ne xale jigéen ñi léegi dañuy dem ci plage yi di def naka dul non non non non plage bu ma wax dëgg yàlla ku moo fi andi sama xel mooy loolu daal ànd ak say copine ànd ak samay copine ànd say non samay copine laa ànd ànd maag copain ah non non la <laughs> léegi nag damay daal di tëj li nga xamante ne mooy les couleurs de l'été tey Eva nekku ci li ma bëgg a doon ah ba duma dugg ci géej gi ah non non ci la <laughs> léegi nag damay bàyyi ba beneen ma daal di demaat ci beneen place daal di fekk fa ñeneen ak ñeneen waxtaan nañ ñoon dëggal ñoon ci émission les couleurs de l'été allez ciao let's go